i soxla réew mi ndax mm. am na dayoo am na capacité pour mën a nekk candidat ci élection présidentielle dama ne bu fekkee dayoo rek la ñuy natt mënoo mm-hmm. ni président Bougane amul dayoo pour mën a présenté wu mm-hmm. mais lu tax ci option yi par parrainage des élus lu tax dugaluñ ci les conseils municipaux je pense que Bougane dem na élection législative élection euh, élection locale mm-hmm. ñaata conseils municipaux la am mm. ñaata conseil municipaux nga mën a wàññil ni ci list gëm sa bopp lañu ñu génnee nekk ay conseil municipaux mhm. kon nañu bañ bàyyi jaaxaan kon mënuloo mhm. jàpp ni ñooñu nga xamante ni tey moom la ñuy woowee ay recalé du ñu ay candidats yu am dayoo man dama jàpp ni gis nga processus bi yëpp c'était pour xeex opposition bi boo xoolee ci ni ñu bun dindoo bi ni ñu tëggee système parenage bi ak processus bi yëpp uniquement dañ ko def dans le but de combattre ñenn ci opposition bi surtout nag ñi nga xamante ni dañu taxaw aujourd'hui pour xeex li nga xam ni que mooy le système. Mhm. parce que ñooñu tam quoi qu'on dise aussi dafa am lu ñu réussir te état bi loolu arrangé wul leen. li ñu réussir mooy dañoo réussir ba convaincre une masse cette belle jeunesse sénégalaise là dafa am mhm. discours bu ñu am ba sénégalais yu bëree bëree bëri ñëw jafandiku ci discours boobu gëm leen def leen ay porteur d'espoir loolu nag la nguur gi tey ne du fi am du ci dal xam nga man souvent du ma d'accord sax ci ñuy wax ay recalés man dama jàpp nit ñi dañ leen sacrifier dañ leen booleeg benn logiciel bu leen sacrifier parce que démb boo xoolee démonstration scientifique yi nga xamante ni apporté nañ ko ak benn ingénieur boo xamante ni ku xarañ la démontrer ay fait mais da nga naan Sénégal cette belle démocratie bi ñu doon bi ñu doon dund fan la ñu jaar mm. parce que li ñu gis démb vraiment dafa ñaaw ci république bu toll ni Sénégal di jël ay parrains yoo xamante ni ay électeurs yoo xamante ni am na si ñoo xamante ni aujourd'hui c'est des conseils municipaux jaar ci ba falu ñoo xamante ni candidat lañu woon nga leen nekk ñu ci fichier électoral bi. Mm. xam nga loolu dafa doy waar te dafa ñaaw ci république bu toll ni bu toll ni Sénégal moo tax donc damay attiré waat attention wu ñi nga xamante ni aujourd'hui mooy ñi incarné aujourd'hui régime bi. Mm. muy nguur gi. Mm. parce que aujourd'hui man je pense que dañu war a dellu ginnaaw ci dérive yi bari na te il faut ñu xam ni Sénégal aujourd'hui fi mu taxaw baaxul ci cercle de feu la ñu taxaw. donc nag am na ay conflits politiques yoo xamante ni soxlawuñ ko aujourd'hui ci contexte bi nga xamante ni fi la ñu toll surtout boo analyser la conjoncture africaine. Mhm. xool ni te le Sénégal est aujourd'hui ci benn cercle de feu bu mu taxaw te loolu nag nguur gi moo ko war a éviter mais dafa mel ni dafa bëgg a pousser l'opposition à ce que troubles sociaux yooyu mën a am les conflits politiques politiques mën a am. Mhm. donc loolu mooy njàngat bi. ci Bougane ak Abdourahmane Diouf li ma ci waxoon keroog dafa leer. mais ce qu'on a vu hier ak euh, mais ah, ban loolu loolu. Euh, les gens ont le sentiment que euh, ni nu ko defee c'est c'est flagrant en fait c'est-à-dire ni ñu leen éliminer ci wàllu euh, parrainage c'était c'était flagrant c'est-à-dire lu ñu mën a lu ñu mën a démontrer la looloo ci gën a garaaw maintenant nag on attend peut-être une réponse peut-être j'ai xam nga venant du conseil constitutionnel ñu expliquer ñu parce qu'on a besoin de savoir. mais xam nga xam nga bu doon sax démonstration yooyu benn ingénieur rek ko ko def nga ni waaw. Mm-hmm. mais ingénieur u Pastef bi gis nañ ko. bu Diomaye Faye loolu sax mën nañ jàpp ni am na lu mu influencé ci parrainage am. Mm. ñoom tamit aussi dañu def des démonstrations très scientifiques. Mm-hmm. wane ni logiciel bi baaxul li mafia la li corruption la lii comme li Abdou Diouf Abdourahmane Diouf wax démb loolu la coup d' état la. coup d' état électronique. mais lii est ce yi <laughs> sénégalais yi aussi. dinañ ko accepter. Mm-hmm. parce que lii c' élémentaire c' est facile. Mm-hmm. ci république bu toll ni Sénégal. moo tax dama ni lii lu ñaaw la man véritablement démb bi ma ko gisee. dama ci am sentiment de désolation. parce que véritablement dama xam ni le président Macky Sall du nii lañ ko falee bi ci condition yi lañ ko joxe nguur gi. Mhm. le président le mieux élu applaudi par tous les sénégalais. dugal ko ba palais tey nag du nguur gi nii la waroon génnee ci ay loxoom. tey candidat yi nga xam ne recalé nañ Fatou wax na ko léegi xale yi gën a nekk xale ci mbedd mi boo leen demoon laaj leen dañ naan la mënul ne c'est impossible. Mhm. ñii avant ñuy dem di affronter logiciel bi dafa am liggéey préalable boo xamante ni dañ koo def. ba gëm ni ak logiciel bu ñu teg mettre ko en place bu wane ni ñoom ñu mën a am ay problème du doublon. ci mhm. parrainage yu ñu jëm. mais ñu dem ñu leen génneel ay doublon interne externe surtout des doublons yi nga xam ne ay électeurs yoo xamante ni logiciel bi refusé na ko alors que véritablement ñooñu ce sont des électeurs mhm. yu vote voté ci ay élections yu ñu génn moo tax c'est déshonorant pour une république comme le comme le Sénégal mhm. véritablement ñu dem ba si njeexalu nguur ñuy gis lu toll nii le président Macky Sall nag est-ce que mooy li may wax encore une fois Mhm. opposition bi dinañ ko bàyyi si lii. Mhm. pour une énième fois parce que dérive yi dafa bari c'est par la première fois lu mel nii di am lépp nag dans le but d'écarter ñenn ñi nga xamante ne aujourd'hui ñoo gën a représentatif ci géew politique bi. Mhm. mais Sénégal élection san Abdou sans Abdourahmane Diouf sans président président Bougane Gueye sans Ousmane Sonko est-ce que loolu sénégalais mun nañ nangu ni loolu élection la. Mhm. mais loolu du élection nañu waxante dëgg. sélection la sélection la yaay tànn sa mbër <laughs> yow yaa xool mbër yi la doy mbër yoo xamante ne leer na ni bu ñu dajeeg sa mbër. mu mu mu mu duma leen. maintenant ce qui reste à faire mooy li ma waxoon la mobilisation kon mënoon jàpp ne ñenn ñi lu ñuy wax ne c' est pour baliser le terrain à à Amadou Ba. Ah, parce que mbër yi ñu gis mbër yi ñu bëgg a tànnal nag Amadou Ba nag dafa mel ni. noonu loolu la. war a soxla na lu tuuti suuxlu daal. <laughs> mais boo xoolee cette cette nouvelle euh, cette configuration. soxla na suuxlu ay suuf tuuti ay ndaba rek la tànn ay ndaba kese. mais mais boo xoolee. mi mi nee waaye dem na ne président bi may ne su ko. <laughs> xam malchance du régime. Ah. <laughs> la malchance du régime. mooy. Euh. barrer la route à ces opposants là. Hmm. parce que gis nga même Mimi Touré nii ñenn ñi di xaw a minimiser. et qui sont teigneux. mais dama ne ñii xam nga moo dañoo xamoon ñi ñu baare du bu ñu demoon dañuy tal seen bopp dañuy toll nii doo gën tal seen bopp Amadou la ñuy tal la malchance la du régime mooy barrer la route à ces gens ah parce que ñii léegi dañu wane une beneen détermination grave te l'électorat Sénégal ñu bañ ko ak nangu ko l'électorat Sénégal mi ngi ci ñii. Mhm. mi ngi ci ñoom Bougane mi ngi ci ñoom mhm. Abdourahmane. ah ils vont peser ci élection bi ngi ci ñoom moo tax keroog mercredi passé ma ne la. aujourd'hui il y a des responsabilités qui s'imposent à leur niveau ñoom. waaw mhm. léegi nag mooy lan dessiner une nouvelle configuration. bu fekkee ni dëggantaan njaay pare nañ exclusivement pour défendre les intérêts du pays. nañu fédérer seen ay force xool nag ban dynamique aujourd'hui la ñuy décliner. xool lan moo nekk seen kanam. projet te wu jëm ci loolu. parce que ñoom rek ñoo mën a actuellement sauver le Sénégal. c'est ça Bamba on a suivi hier ensemble. bien sûr <laughs> mbir mi on était. Euh, sur le plateau euh, du ñu xam nga li fa xaw yëpp. Euh, ban jàngal lañu mën a def sur ce qui se passe. waaw mais le pays va mal. Mm-hmm. <laughs> Sénégal buñ ko waxee buñ ko wax le pays va mal partout. Mm-hmm. dëkk bi si côté jàng bi le pays va mal côté dund bi le pays va mal côté administration le pays va mal langue politique bi sax le pays va mal. et man nekkuma fi sax di wax ñu gars yi di wax ma man moom su ma wax day leer lépp Macky Sall la li fi xew yëpp le président Macky Sall moom moo nommé li nga xamante ne mooy ay saasam si conseil constitutionnel Macky Sall moom mooy jàpp mer Macky moom mooy mere opposition bi Macky Sall moom moo dul muñul dara Macky moo am haine si yenn langue si leader politique yi fi nekk dañ ko wax Macky moom moo jàppale mer gu musul bàyyil bu ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko Macky Sall moo jàppal mer lu musul bàyyeel Bougane Gueye Dany Macky Sall moo jàppal mer gu mu musul yàbbil Mimi Touré Macky Sall moo jàppal mer gu mu musul yàbbil Abdourahmane Diouf Bougane Macky da koo mere depuis ay tibb tànk fa ab Sàng mi ngi koy wax mënul ko ba léegi mag Macky mënul digérer loolu te yaakaar naa di mu wax na ko mhm. wax na ko Macky moo mënul muñ li nga xamante ne mooy Bougane mënu koo muñ Macky moo mënul digérer Ousmane Sonko Macky musuma dégg mu tudd Ousmane Sonko benn yoon Macky musuma gis mu nangul Bougane lenn tëj nañ fi suñu tele bii télé bi tëj nañ ko si ay yoo xamante ne comprendre sax mu ne Macky moo toog bëgg démb si dialogue bi di wax naa naan ay xaw ma am na ñu musul noo xamante ne mënuñoo jàll parrainage lan la Bougane fàttee wax lan la waxul dëgg na fàtt rek mais en 2019 Bougane waxoon na fii waxoon na fii si wàllum parrainage bi waxoon na buñ ko xeexul fichier bii ma leen di wax nii bés buñ ko xew ku ñëw doo jàll parce que Macky Sall ak Macky Sall kenn du jàll. da ngeen a gaaw fàtte ab euh, euh, Fatou Abdou da ngeen a gaaw fàtte rek Balde. Mm-hmm. mais jamono bi fi Bougane di taxaw ak euh, ki nga xam mooy Bamba ah le le le député là mooy bi muy appel législative yi. Mm-hmm. mooy ki mu àndoon le le maire de Médina. ah Bamba Fall Bamba Fall. Mm-hmm. taxaw na fi télévision.